ñu ngi ci wane seen bopp bu baax a baax a baax pour le moment euh, maa ngi toog ak euh, ñi nga xamante ni comme daa wax léegi grand frère ñu ngi lay euh, nuyu di am mbégte ak contentement bu baax a baax la waxtaan ak yow. fay na nga Mame Fallou bu baax a baax a baax di la bëggee ah, ñu ni ko waxee tamit vraiment day doon loo xamante ni nii na tey ñëpp xam nañu ko di ko siiw bari na aussi tamit actuellement ay séries yoo xam ne ñu koy def ay artistes comédiens ñoom ñoo ci nekk di ko def loolu dafay léegi sax nit a di ràññee lan mooy théâtre wala euh, a ràññee dafay baax loolu ñu gën ko xam surtout ci sur scène euh, grand matal dëgg ka jàng ci euh, théâtre. en fait man nag maa ngi ci depuis 2009. depuis 2009 laa ci commencé doon ci foo waaw ba tey nag maa ngi jàng. xam naa loolu vraiment bëgg ñu ne tuuti anam boog nan nga duggee ci jaar. bon mën naa leen rek amoon parce que dama yaakaaroon aussi du yomb la aussi dama yàgg suivre nag euh, comme ñu ko mel ni ay daara ko ci lu mel ni comme jamonoy tey xam nga jamonoy Malick Ndiaye Fall Thial Thial maanaam sama bëgg-bëgg la woon quoi dama ko yàgg bëgg waaw. looloo ma ci gën a inspiré depuis enfance moo gën a tax tamit moom mën a xaaral ñu nekk ci benn secteur comme si koñ bi am am benn waay bu baax bu mu yàlla moom ñu dajale moom tamit fekk ci suñu bëgg-bëgg woo benn réunion nañ tey dafa waxtaan si et kon commencé affaire yi noonu la noonu la déparé voilà noonu la noonu la noonu la déparé mais nan nga gisee théâtre bi nga xamante ni ñu fii na nekk ci Sénégal depuis nga nekk ci pendant des années nan nga gisee théâtre Sénégal tey bu ma waroon naan tey lan nga mën ci wax. waaw waaw loolu dama ciy sawar bu baax pour doon parce que vraiment loolu ni may gisee nii dama ci gis avancement comme ni ma la waxee affaire yi foo leen ko jëlee woon ba pare mais dem nañ ba xamante ne nekk na ci. mën naa ne nekk na ci yaramu nit ñi gars yi dañ koy consommer bu baax a baax a baax auparavant y avait des long métrage xam nga des fois nag yoo xam nga ñëw court métrage doon li ngay doon dem yaakaar naa ñu yomb la xam nga mais boo duggee ba ci biir day xam ne léegi surtout si fi fi fi mu toll beneen bi fi mu toll nii gars yi bëgg nañ ko quoi comme y a des séries yoo xam ne gars yi dañuy jaral ñu bàyyi li nga xamante ne day doon la ñëw di seetaan suñu suñu suñu suñu série nga xamante ne naa aussi di ñaan yàlla mu dem ci kanam rek. mais aussi tamit euh, tey am nga aussi message boobu ñu jàllale en tant que acteur yi nga xamante ni ñoom ñu ngi ci euh, milieu bi toog di suñu mondial bi daal ci biir bi am nga message boobu mën a bàyyi. waaw ça c'est vrai bon li may li may li may wax rek moom mooy li ñu naan def na bay sa réew tànk am gëm-gëm ñu koy def képp koo xamante ne yaa ngi ci biir xamante ne nii foofu c'est un métier noble dañ jox mbir mi cër xamal respectante am di wax dëgg di wane loo xamante ne tamit xam nga day yee doomu aadama yi loo xamante ne foo toogee di ko jàkkaarloo dañ ci gis sa bopp say doom gis ci seen bopp ëllëg muy loo xamante ne dafa war a continuer waaw sama message daal loolu la sama message daal loolu la ku gën a góorgóorlu rek ku gën a góorgóorlu rek am gëm-gëm bi waaw mais mais boo xoolee théâtre bi am yu bari yi ñuy def mun maanaam li ma la waxoon rek laay delluwaat ba tey sama jàll wax loolu yëpp ngëm-ngëm rek parce que àddina lépp looy mën a nekk boo jaay xorom sax neen sama xorom sax dama ciy am réussite bii nekkee ci tamit def ci loo xamante ne ni ëllëg si doo yow ak sa njëriñ laaj daal ne boo ci jaaree def naa ci loo xamante ne sa maam xam nga suñu borom nag moo ñu gën a xam boppam yàlla na yàlla teg ci yoonu njub rek te kenn ku si nekk yow ci li ciy yëngu yàlla defal la ci jàmm defal la ci tawféex mais xam loo xamante ni lii école la lii day dem que ñi fi jaar jaar xam nga bu ñu waxee nag tey suñu a roy ci loolu bien vrai que dañuy naan cinéma cinéma cinéma mais nag da xam fooy teg sa tànk daf ci am solo aussi waaw yeeteel bi loo xamante ne nii dëgg la bëgg mooy solo tey jii Makan buñ la nee tey ne la yow mii tey yow yaay galas demal ci galas bi ba jeex ne yow mii galas buñ la ci ba jeex xam ne yaay Henri mais nag bu weesoo loolu suñu ko xam ne yow ci société bi nga ne am def ci loo xamante ne daal ëllëg si say doom wala say sët duñ ko xool dina yàq waaw sama conseil daal si gars yi léegi léegi léegi ñu ngi gis euh, que ne léegi ku jub rek def li nga xam moom mooy théâtre te gis nañu ne euh, dafa doon euh, moyen de communication bu exceptionnel boo xamante ne ñëpp dañ ciy bàyyi di ci dem di ci jëli di ci war a ñàkk est-ce que jotul aussi tamit parce que lu gën yo yokkaat suñu école yi nga xam ne ñooy jàngalaale aar yi yu mel ni maison de set ak yeneen ak yeneen est-ce que jotul ñu gën a yokkaat yooyu jàngalaat xale yi yokkaat ci moom formation lu toll nii aar nga xamante ni actuellement dafa bokk ci euh, suñu culture. loolu tamit am na solo loolu. Hmm. comme ni ñu ko daan defee ci école primaire yi daanam def des théâtre comme par exemple tey jii bu dañuy def euh, comme comme semaine culturelle tout ma de am ay théâtre moo tax dañu war a jàngale gars yi ñu bañ a mel ne comme sama genre rek te du bëgg a jékki-jékki xëy na tànn am na ñoo xamante ne dañoo rampé dañoo jàng. jamu jamu jamu ko bu baax a baax a baax mais su jàngee foofu par exemple dañoo ne woo dañ la woo ci benn série ñu ne la tey daal lay xool nga neex la ñu ne la yaay interprété te loolu mais nag ci loolu xam nga foofu nga am jàng bi jàng bi moom am na ci solo jàng bi moom comme loo xamante ne lu nit ñi bëgg la daal su ko sama sañ su ko sañoon tey ci liste d' ñi nga xamante ne ñoo dégg ci gox yi xam nga nañu tudd ay école wala tudd ay dem gars yi dox leen miir yi ñu jéem a tàggat tàggatal xale yi ñi nga xamante ne bëgg nañ loolu comme ni ñuy defee arts martiaux et tout ñi defee foot et tout y a des écoles de foot comprendre xam nga ni ñuy defee sport bi xam ne lii tamit jàng la dañ koy jàng te nit ki boo jàngee benn affaire yaakaar naa ni théorie bi am na solo trop trop trop trop trop xam nga pédagogie pour gars yi mën a xam ne lii la waaw su ma sañoon daal noonu lay demee benn instant. en tout cas un message très très très fort ñu lancé appel boobu noonu ñoo koy ministre de la culture donc gars yi ñu gën a yaatal def ay maison yoo xamante ne nii c'est pour recruter ñi euh, nga xamante ni ñu ñëw ci wàllum théâtre bi ko loolu ñu jàngale naa ah voilà parce que y a des techniques yoo xamante ni boo ko jàng euh, dafay difficile trop pour nga euh, def ko sur scène ñu ñëw tuuti revenons tuuti ci suñu seer ma comme ni ñu ko waxee mais maanaam dañuy gis ne da nga am facilité di jouer ci n'importe quel rôle la ko joxee mu koy jouer ba ci lan mooy secret bi léegi moom la. loolu moom xam naa lu may xaw a béy instant xëy na tamit moom xëy na lu ma yàlla jox la noonu la nii parce que man comme ni ma ko sànq. ko mais damay bëgg di continuer eh, eh, di jàng saa su ne mais xam nga dañuy nit loolu yëpp pour taal bi loolu e doon sonné te loo bëgg dañ ciy sonn dañ ciy sonn xam jii bu ñu la nee tey jii da nga bëgg a nekk un jour kuréel foo tax bu ne danga bëgg nekk mbër di nga dem ci géej di nga dem ci saal pour am a am dara théâtre yi tamit parce que dañ ko xool li nga xamante ne moom la teg suñu bët bi lii la xam ci kaw loolu nag dañ ciy am ñàngat nga xamante ne tey jii bu ñu defee benn affaire rek koor bi nii damay dugg ci biir koor dem ci ba jeex man sama sama sama sama esprit loolu la quoi tey boo ma nee tey yow yaay fàll ah dama war a jàkkaarloo yow mii xam nga interview la waxtaan ak yow damay naan tey fàll bi war naa xool fàll bi nga xamante ne moom lay def saa su ne ma jéem a def li fàll bi def loolu rek la am mais amul leneen te di ñaan yàlla tamit yàlla may kattan nañ mën ba ñu gën a jàng loo xamante ne dina neex doomu aadama yi. ñu gën a sant yàlla comme yàlla may dernier mot yi nga am tey lan lay. waaw mbégte contentement waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla xam nga vraiment lii moom di ñaan yàlla li ngay def nii yàlla si yàlla def may ndam. affaire bi ñu def la gëm-gëm la rek ñaanal gars yi nga xamante ne ñooy yëngu ci théâtre. nga xamante ne ñooy yëngu ci téléfilm. gën a góorgóorlu ba lu la defoon. xam nga xam ne affaire bi liggéey la te c'est un métier noble. def ci loo xamante ne pour ñaata sa bopp fay. retour la jox la joué ko ci paree teg kon continué ca la nga doon def mais képp koo ci gis te ni bu ci bëgg a dugg conseiller ko nga xamante ne dina am volonté bu baax xam ne lii du foo wala lu jàng la dafay ñëw pour benn but rek xam nga pour benn intérêt xam nga pour teg soo ko defee du dem parce que mën na yem ci loolu rek mais tey jii nii li may wax rek day avancé war a avancé. da doon yàlla jàppale xam nga kontaan ci yéen rek. tout cas balaa may jeexal ki la ñu wax dama bëgg ñëw ba kan mën a kii de tey euh, mën naa la ne sama soxna la. moom muy yëngu ci aar bu baax yàgg na ci. parce que li ma ne la tey li tax ma gën a bëgg moom it ci la parce que tey yàlla dafa def man sama soxna sax mën naa la la ci aar. bëgg bëgg li mu doon joué kontaan ci li mu doon def moo tax man dem dem dem ba tey lii am. comprendre muy yëngu ci aar en même temps nag léegi temps yéen ñu ngi fi couture. ma di def couture comprendre moom mooy solo naa ma demal. kon bokk na kon ci ñi nga xamante ne massage daa tudd temps kon bokk na ci ñi nga xam ne ñoo lay ñoo lay jox yenn kere. kii ci booy ñëw ci aar bi wala li ci nekk di ci yëngu. waaw waaw ñoo lay jox yenn kere. waaw yàlla xam na ne daf may jox nag des conseils ma ciy jox des conseils yu baax a baax a baax des fois nag ma joué ay rôle yoo xamante ne du ko neex. man nag may naa yow day mel yow doo actrice lan la benn instant <laughs> mais man ma ne suñu su ma ñuy tourné ay nit a may tiim ay nit a may seet bëre na sax li ma yokk ni moom ma ciy fekk soit dana ma defal loo xamante ne ëllëgal si ko sëy sëy mais bu bëla nag bu bëla bu bëla bon man il faut aussi mais rek bientôt DMP de def muy le le nga am ci benn rôle boo ci euh, boo ci boo ci incarné. Mhm. man parfois sax dama naan nekkatoo acteur mais conseil technique nga ci ci ci maison bi parce que bari na yu ñuy waxtaan. Mhm. man ak yow wala nga koy waxtaanee la PDG. donc loolu man wóor na ma. maintenant nan nga gisee série boobu ak ban engouement nga ci nga ci am parce que gis nañu ne vraiment que ni tu tiens ak ñu euh, li xam moom mooy série bi quoi. li ma la mën a xamal ci gàttal daal mooy série boobu am ci rab yi. Mhm. kontaan ci bu baax ndax ñi des jeunes yoo xamante ne dañu gëm seen bopp xale yu ndaw yoo xamante ne xoolal dañoo ne tey fii la xam def seen lépp su ma nag affaire bi ah xàccandoo di dóorandoo di ñaan yàlla jàppale leen mais prix de l'amour mm-hmm. extraordinaire bi nga doon film boo xamante ne nii mm-hmm. ah royukaay lay doon te mm-hmm. nañ ci bàyyi xel bu baax film boo xamante ne wala bu ñëwee yi fi nekk gars yi dootuñu ko xool sax dina cartonné incha allah. loolu gëm nañu ko. waaw yal na yàlla may wér rek. amiin amiin ak fekkee amiin amiin. am na am na am na xam naa am na ñu muy bett ak fi ma la fekk nii mais ñu bari ñu ngi naan kii ministre la voilà parce que yaa ngi ci zéro ministre yaa ngi ko incarné lan mooy problème bi. <laughs> mooy secret bi ma la wax sànq rek. ah, ah. non Fallou dafa may sànq xel rek. non non non mais. mais comme li ma la waxee. Mm-hmm. gis nga tey jii buñ la nee mm-hmm. tey jaaykatu daal. Mm-hmm. jàppal na yow mi buñ la gisee dañu naan yow mi yow da ngay jaay daal. tey bu nga fekkoon ngay tourné nii ñu jox la nag rôle dof ñii la jox war a daw effectivement benn anecdote ma jox la ko mhm. tey am na benn film boo xamante ne dama ko doon tourné benn euh, long métrage ñu mhm. nekk ci plein tournage fekk jour boobu sonn naa trop mhm. mais gis na dañu ñëw ñu man maa war a dem daw duggatu ci biir oto bi léegi bi ñëw ñëwee gars yëpp a ngi taxaw di ma xaar xam nga man sama dégg-dégg yëpp mooy damay xaar pour ñu ne ma action comme am benn maire ñëw waaw fii lu fi xew li ngeen fa xew maa dafa am ko fi sàcc affaire yooyu noonu léegi bi ñu nee action rek ma daw rek maire bi daw. gars yi dañu mujj continuer di dee sax benn teg sax. comme nag mais war na rek dama dugg si dama dama continuer rek di continuer di gestion bi moo war a xamal mhm. rek. xam nga ministre bi waaw boo ci nekkee rek nekk ci. Mhm. nekk ci ba jeex. ak rôle bu mu mën a doon. moom des fois dañu xoolal man sama soxna dañuy naan journaliste la. Mhm. parce que en général dañ koy ëpp li ñu koy jox ay rôle journalisme. affaire yooyu noonu. da xoolal xamul sax luy journal journaliste. affaire yi noonu rek la am. Ah, dañ koy ah, ku ci nekk daal moom moo tax ma ne jàng bi nag daf ci am solo. Mm-hmm. il faut ñu jàngaat. Mm-hmm. il faut ñu jàppalanteewaat. Mm-hmm. kenn xamul yàlla rek. yàlla rek moo xam. waaw mais nag prix de l'amour. ñu ñaan yàlla ci kaw ci kanam ci lu baax. amiin.